attaque euh, contre le président Ousmane Sonko et ses militants puis avant de nous ci Ziguinchor ñu ne waa kër Doudou Ka attaqué Ousmane Sonko yi ba agresse ci ay nit ñi ñu jam leen nous ñi ñu toj seen donc yi donc euh, euh, la déclaration du président Ousmane Sonko œil pour œil dent pour dent voyez le Sénégal ñun jàmm rek lañ bëgg Sénégal suñu sañoon jàmm rek moo fay am mais dafa mel ni Macky Sall ak waa

pour la démocratie sénégalaise ñi ko xeex tey mooy ñoom Ablaye Wade ñoom Ablaye Bathily ñoom Amadan Soxo ak ñoom Landing Savané ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen am ñoo xam sax dee nañ ci am chance ñu fal ko mu profité ci ben occasion en 2012 ba doole nag mënul weesu yow ñu jox la rew ba paré nga am droit pour def ñaari mandat bëgg amal troisième mandat nga xam ne kenn rek moo la mën a xañ troisième mandat boobu noonu te bu ngeen demoon élection ak façon élection bu manti doon te type d' élection bu manti doon kooku daf lay gagné muy Ousmane Sonko parce que jeunesse sénégalaise bi moom la ñu àndal te jeunesse bi ñoom ñoo ëpp ci Sénégal donc nag ñoom comme bëggun jàmm ñu ngi lancé appel les autorités religieuses les autorités coutumières yu nekk Sénégal ak ñi nga xam ne am nañ kaddu yëpp gis nga Sénégal su fekkee yéen jaral na leen Macky Sall intérêt personnel mu ñum andal ñu tal Sénégal su boba di ngeen am gàcce lool ndax intérêt personnel Macky Sall pour tok ci réew mi éternellement wala di xagn Ousmane Sonko ne du fi nekké président su fekkee jëral na len Sénégal tak ngeen nopi su boba di ngeen nekk ay complice mieux vaut nak ngeen teel tirer la sonnette d'alarme ñu wax ci li mais lan moy ndayu tay Macky Sall ak ñu andal ciblé Ousmane Sonko fu gis Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko mi tay dinañ ko attaqué ak ay gaayam mais da ngeen a Ousmane Sonko il va se laisser faire il va pas se laisser faire lancé na appel ay militants yam ne leen bu len attaquer kenn bu len sag kenn bu len togn kenn mais képp ku len attaquer riposte len. te wax na ne su fekkee force de l'ordre yi mën intervenir pour até. nañ len bayyi. Bayyi militant pasteur fi ak militant APR yi ñu xol kan mo man su boobaa dinañ leen duma ay duma yu metti su ngeen gisee gars yi di waxee ni parce que trop c'est trop te lu ëpp tuuru dafa am loo xamante ni ça ne peut pas continuer dans ce pays mënuñoo nekk ci benn réew boo xam ne c'est une république ñëpp a ko bokk benn président ñu fal ko jox ko doole muy def fu baa doola di xeex ay nit di def ay répression ci kaw ay ñi ko contre ay gaayam ànd ak benn violence boo xam ne kenn mënu la kaa wax gis nga ñoom dañoo war a xam ne ils doivent savoir que ils sont minoritaires dans ce pays ñoom nit ñi dañ leen a wan ginnaaw te gis nga tey xeex bu amoon jaamaarloo am wallahi luy tooy ci ñoom lay jógee te ñoom xam nañ loolu parce que ñoom li leen naqari mooy Ousmane Sonko ni mu mel ni ko yàlla def nit ñi dañ kaa bëgg accueil bi ñu ko accueillir Ziguinchor te accueil bi doxantu la woon noonu rek nekkutoon meeting nekkutoon dara dem di préparer pour investiture pour élection locale ñu fekk ko muy réunion ak ay gaayam ñu song ko képp koo xamante ni dañ laa attaqué nga bañ a fayu ku ñàkk fayda nga man de xoola fu ma manti nekk ci àdduna bi bu ma nit attaqué man damay fayu damay riposté duma tooñ du ma xas du ma saaga du ma provoqué mais ku ma attaqué ma fayu mais ñu attaqué la fayu woo kooku si ñàkk fayda la bokk te président Ousmane Sonko wax na leen ko xam naa dina am ay naafeq yu génn na commencé naan Ousmane Sonko dafa bëri fitna fii affaire yu bëri fitna amu fi kenn du fi toog ñu lay rey Ousmane Sonko ñi mu andal attaqué wuñ kenn songuñ kenn ñom ñoleen fekk ñi ñii ñoo dudu ka ànd ak ay boyam ñew di leen attaqué di yuuxoo naan ay Ousmane Sonko violeur di yaq der loolu c'est de la provocation moomuñ Sénégal moomuñ Ziguinchor Sénégal ñëpp ko bok Ousmane Sonko amna droit dem fu ko neex tenir fa ay réunion te Ziguinchor bok na ci fiefam yi fiefam la sax parce que il est originaire de la région Casamance 16 Macky Sall waxal ak sa ay nit nga oote jamm ci parce que réew mi lañ fi bëgg dafa am yo xamanteni nguur gis nga xex bi ni nga entamé am troisième mandat c'est impossible te Ousmane Sonko pour mu présenter candidat te Ousmane Sonko bëss boko ko dara karawam pepp karawam boko ko bi parce que dafa am ñu am ci mom yaakar top ko bëgg ko président de la république pour saafara yenn problème mu sénégalais yi kon ñi war a wax nañ wax ñi war a wax nañ wax lii raam ci ñag bi la jëm waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah